yéenekaay yi El Hadji Ousseynou Ndiaye dalee na jàmm ji xibaar yéene yi nga xam ne nag moom la xëyandoo lu waaye mënul neexul te loo ragal dalay ci ñaxtu bi duñu xamale ñoom kay flyers yi laa wax séddale nañu ko ba mu sàpp laa kaay wax leen bi mu demee maanaam daal ndax kay collectif ñoo lànk ñoo bañ ci kàddu yi nga xam ne daal dañ koy distribuer maanaam daal ñu séddale nga xam ne rek loo xam ne rek jëm na ci séddale ak gi maanaam daal flyers yi fépp yéene kaay gi duñu xamale jamono ji daa mel na nguurug Sénégal ñoo dellu ginnaaw laa taxawaay bii xam ne daal amoon nañu yéene kaay bi dañu di waa yi fépp mujjee nañu ko amal ba mu jeex ci jàmm yéene kaay bi duñu xamal amul benn koo xam ne teg nañu ko loxo comme ni ñu ko doon defee maanaam daal manifestation yii nga xam ne daal dañu ko daan am ñuy dóor ay grenade lacrymogène ak di leen jàpp yéene kaay bi duñu xamal démb kay lu teg loolu dëgg lañu gis élément yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci commissariat bu central yéene kaay bi duñu xamal démb kay ñoom daal amuñu defuñu lu dul leen seeni bët maanaam daal di nga xam ne daal ñoo doon séddale flyers yi waaye kenn damul kenn kenn dóorul kenn lu témoin yéen i ñoom borom flyers yi ñoom kay am nañu ndam laa la wax ci bi moom la ñu amal fekk jamono joojee source a yéene kaay bu fóotal mbati Rothil Bar gannaaw bilan bii nga xam ne rek defoon na ko police ci Touba andil ñu nag bilan atum waa Mbàkke ñoo xëyola liggéey gu solo gii nga xam ne rek takk déer yi nga xam ne rek ñoo nekk ca commissariat UV bu Mbàkke yéene kaay gi duñu xamal liggéey gu solo ndax lu toll ci fukk juróom-ñaar groupe bu def ñaawteef yoo xam ne rek tas nañu leen toll ci nañu leen waaye nag fàttewuñ bu loo ne rek jëm na ci wàllum saafara indien maanaam daal yàmbaaja arme mu mel nag dafa tas ak lu ma ne xew daal laas yéene duñu xamal moom mi nga xam ne rek moo taxaw li nga xam ne rek man taxaw sunu APR jamono ji nag Moustapha ma ngay joxe daje tey ci page Facebook am ci ay leeral yoo xam ne fas yéene na koo andi le quotidien yéene kaay nañu ne mbir xeex la boo xam ne daanaka daal ab xeex kenn xamul lu muy nuróol ba léegi Moustapha Diakhaté àndul ci dogal gii nga xam ne rek jël nañu ko ngir génne ko ci parti njiitu réew mi di e ñu xamal ne e e ko ñoo nekkee ci réewum si ni nga xam ne rek ñoo nekkee ci lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu biiru yaram ci jamono ji kay ña xalaa xalaa doo fi jaar maanaam daal booba virus dañuy gàttanu maanaam daal di ko kar ngir mu bañ dugg ci réewum Sénégal yéene kaay gi ñu xam ne ci ne daal amoon nañ ñi nga xam ne nag ñoo di kilifa yi danañu fexe ba virus boobee laax du law ci réewum Sénégal ñu daanee ko wax ci public ci xibaar bu doy waar bu yéeme bi nga xam ne rek moo fi nekk yéene kaay gi ñu ci diggante kawoon ak Kaolack mbir mu doy waar daal moo fa xew maanaam daal ay defkatu ñaawte ñoo songu këram kii nga xam ne rek moom moo di Abdou Aziz américain yéene kaay gi duñu xamale gannaaw ba ñu ko songee lala ay ngànnaay jàpp kenn ci ay doomam wulli ko ba mu nooy daal koy dóor buy bëgg de ñuy doomu Abdou Aziz américain mi nga xam ne daal song nañ ko moom doom joje ne gannaaw ba ñu ko yóbbu fi nga xam ne moo di hôpital fa la mujjee